Thank you.

mbokki internet yi seetaan euh, Senef euh, info ak Sen Info TV tey ñu ngi ci euh, dëkk bi ñu ooyee Pakacaar Secco ñu fas yéene seq ak ñi nga xamante ni ñi ñoo yor wàllu organisation mais fii ñu toll nii nag ñu ngi ci biir waañ bi mu fekk ñu fekk fi kenn koo xamante ne kilifa la ci ñi nga xam ne nii ñoo ŋànk liggéey bi ñu fas yéene ko seq ak moom tuuti ay laaj sëñ bi tur la. maa ngi tudd Pape Mahmoud Dramé laa tudd ñu gën maa xam ci Pape Naar Dramé. Euh, Pape Mamour euh, tey ñu gis ne tey seen dëkk bi boo xoolee euh, fu bari ay dëkk yu wuute nit ñi ñëw nañ fi fas yéene fee defee si gàmmu mhm. est-ce que mën nañ xam góor gi nga xam ne moo sànc dëkk bi mhm. dëkk bi suñ maam ku ñuy wax alaaji Mamour Sëtu mhm. moom moo ko moom moo fi nekk moom moo fi daan organiser gàmmu organiser ko ci loo xam ne nii dafa dëpp ak sunna ak diine ak ci charia mu bi mu fi jógee ba léegi nag xalifaam nekk fi alaaji Hakim Dramé mm-hmm. di wëyal loolu ak ay rakkam ak njaboot geeg ak sët yeeg taalibe yi yëpp mm-hmm. moo taxit ñu ren ñun tamit ñu ne nañu organiser gàmbu gi comme ni ko dëkk yëpp di defee loolu moo tax ñu ci moo moo tax ñun ñi fii nga ñu fekk nii mooy wàllu waañ bi waañ bi nag moom moo nekk nii wàllu xéewal yi ci lañ nekk ni pour waaw wàllu njaaye si siise yi pour préparer berneel yi ndax gan yi fi nekk ay gan yu tedd leen ndax gan yu bi sallallahu alayhi wa sallam la guddi yenent bi la bisu yeneent bi la lépp moom la

taawam xalifaam di alaaji Akim Dramé mm-hmm. ànd ak ay rakkam ak ay sëtam di ko continuer ñu ni tamit ñuy ay sët di ay doom ñu continuer affaire bi loolu moo waral ñu nekk nii. est que mën nañu xam comme ni dëkk bi ni dëkk bi bindoo mm-hmm. parce dëkk bi euh, li ma ci njëkk a marqué mooy mm. bi nga fi ñëwee dafa mel ne yaa ngi ci biir ville bi. Mm-hmm. est-ce que ñi nga xamante ne ñooy bàyyeekoo ci dëkk yu wuute yeeg yooyu. Mm-hmm. maanaam du ñu am yenn jafe-jafe yi ñi nga xam ne yëpp ñu soxla dafa mel ne am na ci dëkk bi de. déedéet déedéet wax dëgg yàlla fii moom dëkk boo xam ne nii ñëpp benn lañ. Mm-hmm. ndax même bu gàmm wala même lu dul gàmm yi tamit boo fi ñëwee doo xàmmee kii ci kër kii la dëkk wala kee kër kee la dëkk surtout nag gàmm nag. Hmm. gàmm surtout gan yi bu ñëwee xàmmewul kenn man am naa ñoo xam ne xam naa fi muy waxee nii ñu ngi ci dëkk bi jógee ba dakaar mais ñu ngi dal beneen kër. boo xam ne ni bokk la kër sëñ Mamour moo tax waa dëkk bi ñoom tamit bu gàmm gi jotee hmm. day mel ni seen seen bis la hmm. dañuy génn seen i kër génn bale mbedd mi dalal gan yi teral leen ànd ak ñun ci liggéey bi fii ñi ngi gis ñi ci waañ bi ñu ci bëri ñoo xam ne ci dëkk bi lañ dëkk di jàpp ci liggéey bi loolu wax dëgg yàlla daal dëkk bi moom boo fi ñëwee gàmm moom macha allah moom wax dëgg yàlla ñëpp benn lañ ñëpp tamit wax dëgg yàlla même bu dul gàmm tamit ñëpp benn lañ loolu. loolu ci lañ ci mën nañ xam lu ngeen di préparé fi mu toll nii gan yi. waaw wàllu añ bi. waaw wax dëgg yàlla añ yi moom macha allah ndax it kër goo ci dugg fi mu toll nii mu ngi préparé waaye fii mooy kër gu mag gi. Mhm. kër gu mag gi nag fii la affaire bi soxee ko moo tax nga gis fii ñu ngi préparé añ yi bu ñu paree incha allah jox ko gan yi jox leen ñu lekk ba suur naan ba màndi préparé su ko defee incha allah ngoon gi am nañ ay euh, am nañ ay waxtaan ay conférence yu ñu war a def incha allah guddi gi tamit préparé guddi gi tamit am nañ ay reer ak kii yoo xam ne war nañ ko def yi tamit incha allah ba suba yi tamit ndëkk yi ndax suba gi mooy tëj gi yooyu tamit yëpp fii lañ koy fii lañ koy préparé ñu gis ne euh, tey bi yoon dafa ànd euh, euh, médecin yi fi daan ñëw di def mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. consultation tey dañoo gën a yokk ñu gis ne waa dëkk bi bari ñu ngi ñëw ñu leen defal consultation gratuite ren yow nag nga ko jàngat waaw waaw ren macha allah dafa innovation bi dafa dafa rafet trop mm. parce que dëkk boo xam ne nii la nit ñi dañ koo soxla dañuy soxla di gis médecin yi di waxtaan ak ñoom mm. di wax seen jàngoro ñu leen koy fajal wax dëgg yàlla moo tax innovation bi dafa rafet trop trop trop trop mm. ñu ciy gërëm ki nga xam ne ni moo def partenaire bi muy alaaji Ousseynou Lamine ak ñi mu ci àndal ñëpp di ko gërëm bu baax a baax ndax nit ñi soxla nañ ko bëgg nañ ko moo taxit biñ ñëwee tamit ñun ñu génn suñ kër jox leen kër gi ñu toog fa di def di di consulter nit ñi di leen may garab loolu tamit eh, innovation la bu rafet boo xam ne nii ak yokkute boo xam ne nii gëm nañ ne incha allahu rabbi dinañ ko continuer ndax population bi kontaan nañ ci bég nañ ci trop wax dëgg yàlla. yan kàddu ngay dénk ndaw yi dëkk bi. waaw dëgg yàlla wax leen ne leen dañ fonk dëkk bi gën a jàpp mag ñi. te lépp loo xam ne ni mag ñi daan nañ ko def muy dundal sunna ak charia nañ ci jàpp ndax loolu moo mën a avancer loo dëkk ñuy ñaan yàlla ñu yaat koo fekkee ay at at at yu bëri bëri incha allah rabbi jërëjëf jërëjëf merci jërëjëf mu doonoon euh, tur bi Pape Mamour Dramé mu nekkoon Pape Mamour Dramé mi nga xam ne moom lañu ñu àndaloon mm-hmm. tey ci fas yéene seq ak moom waxtaan moom mu bokk ci ñi nga xam ne ñoo ŋànk liggéeyu waañ wi Euh, tey nag ñu doon ko laaj gis nga taxawaay bi nga xamante ne ni ndaw ñi am nañ ko dara waralu ko lu dut euh, maanaam bernde gan yi nga xam ne ni ñoo fi nekk euh, xam naa dinañ fekk fas yéene seqaat ak waxtaan ak ci ñi nga xam ne nii ci ndaw dëkk bi. mbokk yi comme niñ leen ko waxee ba tey ñu ngi ci biir dëkk bi di seet ñi nga xamante ne nii ñoo ŋànk wàllu. wàllu taxawaay bi nga xam ne dëkk bi war na ko am ci wàllu gàmm gi léegi ñu ngi doon waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo ŋànk waañ bi mais kii nag nee nañ mooy président Euh, organisation bi moom moo gérer lépp loo xamante ne wàllu organisation bi dañ koy bàyyi mu nuyoo ak askan bi su ko defee it moom mu wax turam sëñ bi tur bi naka la. waaw euh, salaamaaleykum wa rahmatulah tur bi Babacar Cissé la ak Tidjani euh, di wax salaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi lay nuyu bu baax. di la siyaara. di nuyu ñëpp ñu ñuy seetaan. di leen siyaara. bu baax a baax di leen ñaanal jàmm di ko sàkku si yéen di la déglu ci sa laaj. laaj boo ñu laaj rek te ci mën a tontu ñu tontu ko ci allah euh, sëñ Babacar ñu gis ne dëkk bi tey euh, dafa amoon ay consultation gratuite yoo xam ne dafa du ma ne dafa amoon sax dafa am waaw consultation gratuite euh, ñu gis ne ci li ma dégg dafa mel ne nombre de médecins yi dañu yokk yow mi gérer organisation bi nag nga ko jàngatee waaw loolu moom yaakaar naa lu ñëpp di rafetlu la parce que feebar faju ku ne xam ne ñun suñu dëkk yi mm-hmm. feebar faju fi dafay jafe mm-hmm. jigéen ñi ku ci ëmb war a dem da ngay yéeg seret même booy am doom mm-hmm. da ngay yéeg seret di dem ay 7 kilomètres mm-hmm. ba 10 kilomètres mm-hmm. euh, nit day feebar toog ci kër gi nga fekk mu leer la ni kii dafa war a dem hôpital nga wax ko dem hôpital mais suñ demee hôpital suñ hôpital yi daanaka da ngay dem ñu xool la rek bàyyi la nga dem ñibbi mhm. daanaka duñ la defal dara mhm. euh, kon suñ amee médecins yi di fi ñëw nga xamante ni ay médecins wax dëgg yàlla yu jàmbaar lañ mhm. soogu ñu fay ñëw euh, ñëw nañ fi ay yoon waaye euh, comme tey mbooloo mi ngi gis ñu ñëw war nga cee jàngee ni kon ñoom liñ fi doon def lu am njëriñ la léegi ñëpp yàkkamti lii am tey nag mu tombee ak bisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di bisu gàmmu ñu ñëw di màggal gàmmu mbooloo mi dajee fi ngir màggal yonent bi sallallahu juddu yonent bi sallallahu alayhi wa ñëwaale di faju xam nga loolu lu rëy la ndax dañuy wax ni benn da ngay ñëw am ñaar ndax màggal bisu yonent bi kenn amul lu tool noonu waaye ak sa wér-gu-yaram ndax yaakaar naa gis nga mbooloo mi ni ñu mel suba ba léegi nit ñaa ngi ran foofu jël ay ticket di dugg. te kenn ku ci nekk su génnee waxu docteur yi waxuma la sax faj bi ñu lay faj mais ni ñuy waxee ak yow dalal sa xel rek loolu rek xel mu dal rek wérgu yaram la. jox nañ leen ñu ngi leen di jox ay garab di leen xool te kenn fayu ci dara. waa te ñi fi biñ fi njëkkee ñëw ñi ñu fajoon. boobu ba léegi ñi ngi doon yàkkamti ñu ñëwaat at mu jot fu mu toll nii nit ñu bari dañuy yokk ndax kenn ku ñëw danga ciy gis njëriñ soo demee wax say mbokk ñoom tamit beneen yoon ñëw. d'accord mais ñu ñu jàll ci li nga xam ne yow moom yaa ko yaa ko yore. Mhm. yaa ko gérer mooy organisation bi. Mhm. ñu gis ne ñun biñ ne cëpp ci dëkk bi dañu gis ne lu muy guddi guddi nit ñaa ngi ci wàllu liggéey bi naka maanaam déggoo googu naka la demee yow ak ndawi dëkk bi. Mhm. ba nga xamante ne gis nga fee ni mu mel. fiit it noonu la mel. waaw loolu moom li ko waral mooy. Euh, organisation bi. ñëpp dañ cee bokk nekk ndax euh, kenn mënul dara mbooloo mi yëpp ñoo tolloo àndandoo bëggandoo dara nekk ceendoo am ñu nekk fii ci dëkk bi di ko taxawee am ñoo xamante ni ñi ngi dakaar am ñoo xam ne ñu ngi Mbuur ak fu nekk ci Sénégal wala fu nekk ci àdduna bi am na ñoo xamante ñu ngi fi bokk ci mbooloo mi léegi nag ñëpp ko bëgg doon benn ay nelaw nañ dem kenn nelaw mën naa la wax ñii ngay gis nii Euh, man ñi ma jugee ndool Dakar. Mhm. démb bi ñu xëyee ñoo nekk ci liggéey bi yendu fa ba ngoon ñu dugg ci oto yi ñëw bi ñu ñëwee kenn tëddiwul mën naa la wax man euh, trois jours a ngi ni nii tëddum te itam leer na ma ni tey du ma nelaw suba aussi du ma nelaw. waaw organisation dafa metti waaye nag euh, xam nga dafa neex nga am ay gan ñu fekk si la. nga fexe ñu lekk ba suur naan ba màndi wax dëgg yàlla loolu dafa neex nit amul lu dul lu dul ak tamit nit ñu bëggante soo xoolee yow euh, kenn du la wax loolu boo xoolee nit ñi gis nit ñi seen kanam ak nit ñi foyee di ree di kaf di liggéey kenn ku nekk da ngay jàpp benn affaire sa moroom ñëw jël ko dem def bëggante googu daal loolu laa jàpp ne mooy suñu secret. mooy suñu secret waaw tey ñett ngay yan kaddu ngay dënk ndaw yi nga xam ne ñoo nekk ci yeneen dëkk yi. Mhm. war a taxawee taxawaay bi nga xam ne yéen seen dëkk taxawee nañu. waaw loolu moom li ma ci wax rek mooy eh, nit ku nekk dañuy wax ndimbal na fu fekk loxo borom. Mhm. dañuy toog rek naan état état wala ñëw nañ ñu dimbale. Mhm. mais nit ñi bu ñu àndee def benn bolok. yàlla daf leen di jàppale ndax yàlla moom moo wax ni mbooloo yërmande la. kon ñu booloo rek yàlla yërëm leen te yàlla ñi mu yërëm rek ñu mu am ci ñoom ñeewante rek luñ jéem dañ koy mën kon daal li may ñaax yeneen mbooloo yeneen dëkk yi mm. mooy nit ñi nañ jéem a ànd jéem a doon benn su ñu génnee ci àll bi lépp lu ñu fa gis lu rafet ñu fexe yóbbu ko suñu dëkk comme ni ñu def tey ba euh, sëriñ bi Ousseynou Dramé euh, indi ay médecins yoo xamante ni ñu ngi ñëw fii di faj parce que lii nekkul lu ndaw acte bu rëy rëy rëy la waaw ñu ngi jógee ba université nga dem gis foofu ay nit na leen dama leen di jël yóbbu leen sama dëkk pour nga faj nga faj askanu tund woowu ndax du dëkk rek tund wi ñu ñëw faj leen vraiment loolu dafa rëy maanaam acte bu noble la boo xam ne du ñëpp ñëw ko mën tey ñu bari buñ gisoon loolu seen kër lañ koy yemale wala ci seen bopp mm. waaye moom da koo jël ñëw indi ko ci tund wi yëpp nag waaw te jàpp naa ne lii su ko ñëpp doon def mm. ah imaginel tey fii ni fi faju jafe mm-hmm. boo feebaree doo faju boo demee pharmacie doo am ay garab mm. léegi bu fekkoon kenn ku nekk fi nga dëkk da nga fexe taxawal fa lii konoon léegi ñëpp wér te nit amul lu dul wér gu yaram loo gis nit di bëgg rek dafa fekk mu wér ba pare mm-hmm. mais bu sa bëñ doon métti wala dara di métti dootoo bëgg xaalis mm-hmm. dootoo bëgg dara ci àdduna mm-hmm. kon nag nañ ñaan yàlla mu defal ñu wér waaye it seex bi Ousseynou Dramé moom tamit ñu ñaanal ko yàlla yàlla dolli ko sutura dolli ko kàttanam ba lii mu dem di gën di yokku ba mu koy def ci saalum gi yëpp ba mu koy def ba mu koy def ci saalum gi yëpp waaw vraiment lu rafet la loo xam ni man bëgg naa képp ku ñëw fii nga jàngee ci képp ku seetaan lii tamit mm. nga jàngee ci ndax nit jàpp naa mënoo yóbbul sa dëkk ay milliards boo ko indi woon di ko maye fii mm. te nit ñi wéruñu mm. boo fi indi woon ceeb di ko joxe nit ñi buñ wérul duñ lekk mais suñu wéree danañ mën a dem liggéey ba amal seen bopp vraiment lu lu jërëjëf jërëjëf mu nekkoon euh, président bi nga xamante ne moo yor organisation bi ñu seqoon ak moom tuuti ay laaj ah, mu yii nag mooy kàddu yi nga xam ne rotal na ko fi waaye di gërëm gi nga xamante ne mooy El Hadj euh, Ousseynou Dramé mi nga xam ne nii moo def jéego yëpp ba nga xamante ne nii euh, dëkk bi tey ñu bëri tey ñu ngi ñëw di saytu seen wér-gu-yaram pour luñ ci mën saafara ko jërëjëf mbokki internet yi nga xam ne yéenay seetaan. seen info 8 TV tey nag ñu ngi waat ba tey ci biir dëkk bi di bésu gàmm ah, ginnaaw bi ñu waxtaanee ñi nga xamante ne ñoo ŋànk wàllu waañ bi waxtaan ak président d' organisation bi tey nag ñu fas yéene seqaat ak keneen muy soxna boo xamante ne nee nañ ah, doom la ci xalif bi waaye dañ koy bàyyi mu nuyook askan wi wax turam soxna si bi naka la. man Fatou Dramé. Uh-huh. asalaamaaleykum. maa ngi nuyu ñëpp ku nekk si tur ak santam. di sant yàlla bu baax jul julli si Mouhamadou sang-sang yi salallaahu alayhi wa di sant samay waajur waaw comme ni nga ko waxee rek ñun dañoo ñëw judd ñëw fekk fii suñu maam sëñu maamu sëtu màggal lii jéggaane ko fenn dañoo judd rek ñëw fekk ko suñu maam suñu maam di ko màggal jóge fi xalifa bi sam di ko di ko topp ko moom itam ba fii ñuy wax ak yow ñu ngi sant ñëpp daal di julli si Mouhamed sang-sang yi di gërëm ñëpp di gërëm waaye dëkk bi yépp seen taxawaay rafet na ndax ñëppay bàyyi seen yëpp ñëw ci liggéey beeg ku nekk ak sa am-am sa man-man sa doole sa lépp nga def ko ci waaw dama la fekk léegi ci biir ay soxna fale mhm. mu soxna yooyu fa nekk maanaam waa dëkk bi lañu wala ci ay dëkk yu wuute lañu bàyyi ko ñëw jàpp ci liggéey bi waaw soxna yi waaye dëkk bi ñu ngi fi ñoom itam ñu jógee dakaar ñoom itam dëkkandoor yeeg am di jàmm yi ñoom ñëpp ñëw nañ pour jàppale ñu si bis bi si bisu sang bu tedd bi waaw loolu moo nekk daal léegi euh, léegi tey euh, euh, tey gis nañ ne seen dëkk bi am na ay gan nak ngeen di def da ngeen a génne néegi jox leen wala. waaw dañuy wàcc lal yi rek comme nu ko xalifa général digalee rek sargal ñëpp tatagal ñëpp. wàcc lal yi teral gan yi jox leen ñu tëdd jox leen ñu lekk ba suur naan ba màndi noonu daal lañ koy defee ganale leen bañ bég bu loolu weesoo fi teew tey nañ nga bég bu loolu weesoo ñu bu loolu weesoo ñu gis euh, euh, tey euh, limu fajkat yi fii daan ñëw mhm. dafa gën a yokk mhm. gis nañ ne dëkk bi ñu bari ñu ngi ñëw di leen faj si mhm. yow nag nga ko jàngate en tant que doomu doom ci xalifa bi kontaan rek kontaan ak mbégte ak sant leen nag waay santé bi surtout nag waay santé bi tey dañu def lu rëy tey dañu def loo xam ne dafa rëy si dëkk bi ndax période bi ñu toll nii tembe yow xam nga maladie bi xew si réew mi adduna bi laay wax ak période sibru bi fii ñu tollu nawet bi kon bu waay santé ñëwee fii di faj gratuite ñun dañ leen di sant di leen gërëm di kontaan si lii ñu def di leen ñaanal bu baax a baax a nag yàlla fay leen lii ñu def kontaan nañ si bu baax a baax a baax dëkk bi yëpp kontaan nañ ndax xale yëpp faj nañ leen yi faj nañ leen may leen garab gratuite. nga fàttali ñu tur